benn déclaration boo xam ne ni euh, dañ koy def ci turu fédération des boulangers de Touba bi nga xam ne mi ngi ànd ak euh, FNBS fédération nationale des boulangers du Sénégal euh, woote bi nag dafa mel ni dañ koy woote ci àqi ñu gën a joxaat gëdd secteur bi nga xam ne moom lañ nekk ndax secteur boo xam ne mi ngi làmboo trente mille emplois directs lamboo euh, maanaam fanweeri junniy emploi yoo xam ne ni direct la ak ñeent fukki junniy emploi yoo xam ne ni indirect la am ci côté Pays-Bas représente fa 3 pour cent di def benn chiffre d'affaires u 600 milliards par an maanaam di juróom benn téeméeri milliards ci at mu ne loolu secteur bu ko lamboo ne cim réew day jot nag ñu jox la langa moom ci réew ma ba tax na euh, gis nañ ne euh, considération bi nga xam ne gëdd gi nga xam ne war nañ ko jox secteur bi joxuñu ko moo xam ci côté maññee la moo xam ci côté état la ndax li ëpp ci liy tukkee ci maññee yi bu dee représentant yi nga xam ne ñoo ne ci région yi ba président national duñ ci am lu dul da ngay toog fa nga toog jàpp sa rajo. dégg information boo xam ne day nekk information bu da boo xam ne day soxal secteur bi loolu nag lañ ne danañ takkatoo képp koo xam ne yor nga boulangerie ci Sénégal ndax Touba lañ ko tàmbale waaye du fi yam ndax day jàll ndax le euh, le 17 bii di ñëw rek di gannaaw suba woote nañ euh, rencontre nationale boo xam ne dakaar lañ ko woote muy euh, pàcc boo xam ne dañ koo jël ndax farine bi cher na te prix bi nga xam ne ci lañ ko dote pour mu jël en charge li nga xam ne mooy boulangerie bi euh, arrangé wul boulangerie bi ndax buñ ne saako farine bi li ñuy wax moom lay jar ak prix mburu bi li muy jar boo ko cumulé mënul jël en charge li nga xam ne mooy boulangerie bi léegi lii moo mën a am état na replier wu dem waxtaan ak meññee yi ñu xool ñoom nu ñu organiser ba wàññi njëgu farine bi wa ñu xool nu ñu organiser. ba mburu mi ñu def ko prix boo xam ne nii euh, boulangerie bi dana ci mën a génn waaye gis nañ ne fi nga xam ne fa lañu tëral prix farine bi ak fi nga xam ne fa lañu tëral prix mburu bi ñoom ñaar mënuñoo ànd ci biir loolu nag regroupement des boulangeries de Touba jóg ak mbooleem personnelam ndax ñi fi nekk ñëpp ay entreprise lañ door te ku ne xam ne ne entreprise su boulangerie du loo xam ne lu yomb la xaalis bu bëri moo koy def ñaareel bi aussi dañoo am ay responsabilités yu mag yoo xam ne daf ñu xaar suñu gannaaw di ay charges yu métti yoo xam ne ñu ngi ko gàddul état parce que bu fekkee ne 70 000 emplois total da nga ko jël état war na laa bàyyi xel bàyyi xel goo xam ne soo amee problème war naa replier wu nag ñëw accompagner la ci système boobu mais ñun leen gis te jàngat ko mooy su ma yi amee problème état dafay replier wu directement ci meunier yi régler leen seen problème mais secteur boulangerie. depuis ay at a nii ñu ngi koy wax naan dafa am problème dafa am problème waaye jàngat bi ñu ci am mooy gis nañ ne état da cee seetaan seetaan googu ci état seetaan nag lañ bëgg a dajaloo toog jël suñuy support yëpp waxtaan ak état ci mu joxaat secteur bi gëdd jox ko li mu moom parce que secteur bu mel nii bu fekkee dafa ne ci sam réew nga war koo jox la nga xam ne moom la moom boo ko joxul nag yaa ngi gàddu loolu tax ñu woote tey jii. képp koo xam ne yor na fuur nañ xam ne mi ngi nii ñi nga gis sépp ay chef d'entreprise lañ ay investiment yu mag lañ yor donc ay responsable lañ ñi ngi woo ñëpp nag ci ndaje mi nga xam ne ñu ngi koy woo woote fële Dakar di set kon daal loolu mooy appel bi ñu xam ne lii benn jéego la mais su fekkee solution amul am na beneen jéego boo xam ne mi ngi ñëw farine bi cher na prix mburu bi baaxul li tax prix mburu bi baaxul aussi. dafa wàcc ba ci consommateur bi parce que consommateur bi dafay accuser borom four bi ci sa mburu mi baaxul fekk 190 grammes pain ku ne xam ne ne 300 grammes la jóge woon wàcc 280 grammes di wàcc ba 190 grammes 190 grammes pour nga am ci pour nga am ci qualité mburu bu baax du yomb donc mburu mi nañ ko jox prix bu baax farine bi ñu équilibré ko te bu ñuy waxtaanati ñu boole ci boulanger yi woo leen meññee yi toog état toog boulanger yi toog ñu def synthèse. lañ cay jëlee dana mën a jariñ boulanger yi dana mën a jariñ mañe yi euh, li sëñ Moustapha wax ci kii bi mooy ñun lii nee naa leen benn jéego la boo xam ne def nañ ko pour wut solution parce que tamit nit ki mënoo koo jaay fëriñ boo xam ne qualité bi baaxatul prix ba nga ko koy jaayee cher mu nekk nga bëgg ko ko euh, nga bëgg nag mu liggéey ci système boobu mënul nekk la muy wund nag mooy su changement amul dañuy am ay risques wu boulanger yi di tëj wala ñu nekk ci crise balaa loolu nag danañ xool solution boo xam dinañ ko jël solution bi ñuy jël nag balaa ñu cee mën a wax lu leer mooy dañuy xaar ba dem Dakar gannaaw suba la di set ñu ñëwee lu ñu fa jëlee dana doon beneen déclaration boo xam ne nii dana daj ñëpp.